na métti tey ñuy wax ba yàlla def muy ci production <laughs> sa xol nga ma tatoué eh ma fees ci say te nga ni benn gel xajatul ci sa maa ngi muñ maa ngi jàpp maa ngi jéem maa ngi def maa ngi topp maa ngi dem ngeen ñu bind suñu love histoire yi gën a kawe ci réel love wax ba ma teg ci baat waaye tay dina doon bés bu nekk ndaxte gore gore rek moo koy fay lu danga bàyyi ñëpp nga ni sa waay li bu dee dëgg la ni dara du ko fay waajalal sa baagas kay dina lu fly même bu may fande aw ma lekk lu ma naan la wax bu ma jox doy na ma waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki waa àdduna mbokki internet yi tey ñu ngi fii ci Ngoundiane euh, ànd ak la vingt 24 ak euh, RTTT mooy tey yi nga xam ne moom mooy télé artisan yi ñëw fii ci Ngoundiane ñu am fi 72 heures de formation ñu ngi toog ak le formateur muy monsieur wadd ah ñu laaj ko formation bi ni mu déroulé ak ban yëg-yëg la am bi mu ñëwee fii ci Ngoundiane kon président Abdou bismillah ñu ngi lay nuyu di la wax ni yaa ngi ci Sen 24 ak euh, RTT muy. télé bi nga xam moom mooy télé artisan yi ñu bàyyi la nga nuyoo après ñu dugal suñu question waaw merci euh, maa leen di nuyu di nuyu waa télévision bu regroupement des terres de Thiès di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne fekk si leen tey fii ci Ngoundiane waaw monsieur Wade ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee ci Ngoundiane defal leen soixante de formation quoi waaw vraiment kontaan rek ak mbég parce que fekk fii ñoo xam ne euh, bëgg nañu euh, li ñu doon def euh, vraiment ay tailleur yoo xam ne jóge ba Dakar pratiquement ñoom ñëpp kenn nekku ci ngu ñaan mais ngu ñaan la ñu dëkk mais Dakar la ñu nekk di liggéey vraiment ñoom ñëpp jóge Dakar am fi trois semaines sax man am nañ ko fii ah. di formation bi bi bi mu ñëwee ñu def ci seen fulla ak seen fayda hmm. vraiment ba tey ñu nekk ci terme formation bi Euh, est-ce que am na ay jafe-jafe ci explication bi par rapport comme ni nga ko waxee comme ñoom ñëpp ay professionnel lañ jógee Dakar ñëw est-ce que formation bi yomboon na wala amoon na tuuti difficile daal. waaw macha allah yomb na trop. kan ni ma ko waxee chaque jour. nekkul ni dañuy ñëw pour ci jàngal leen. Uh-huh. mais ñoo xam te ni mën nañ seen métier ba seen ay place. Uh-huh. taxawal ci seen i kër. yaakaar naa ne ñooñu du nekkul am jàng mais ay réglage rek la. Uh-huh. ci kii bu xew léegi ci ci mode bi xew léegi. am yoo xam ne dañoo war a ñëwaat rek waxtaan pour ñun ñëpp ñu mën ci ñëw. loolu moo tax yomb na trop macha allah. macha président kon euh, lan ngay wax yeneen raisons yi communes yi département yi nga xam ne ñoom ba tey amaguñu chance am formation ban message nga leen di jox. waaw message bi ma joxee mooy euh, euh, ñun waa regroupe ñun waa MTS muy mouvement des tailleurs du Sénégal. Hmm. ñi ngi programme ay formation ci Sénégal gépp hmm. fi ne nii semaine bu ci nekk am nañ foofu fu ñu war a dem. Hmm. semaine bi di ñëw ñu ngi war dem euh, Noto. bi ci topp ñu war dem Ziguinchor. bi ci topp ñu war dem Medina Fall Cage ba. noonu la programme yi tegaloo ba macha allah. ci Sénégal gépp ñu ngi programme pour ñëw avec MTS mi mouvement des tailleurs du Sénégal. pour former tailleur yëpp ci suñu doole bopp aussi. ci suñu ay cotisation bopp du du du ñu xaar kenn ku ñëw mais kuñ ci fekk si nag baax na mais ñun daal ñoo ngi euh, commencé ak suñu formation bopp ak suñu doole bopp. macha allah merci beaucoup jërëjëf. sax laa doon def dernière question bi. mooy ndax état rek mu ngi ciy jàpp wala jàpp ci xam naa loolu boo ko tontoo rek nga tàggoo waale incha allah. waaw ñun nag euh, comme li ma la wax léegi ñun du duñu xaar eh, eh, eh, état. Hmm. xëy na nag bu ñëwee mu ñu gënal. Hmm. parce que am na doole joo xam ne ñoom ñoo ko man hmm. ñun nag du duñu leen xaar ñu ngi jël suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm di ko conseillé di def suñu information ñëwaguñu nag mais ñi ngi leen di xaar bu ñëwee ici di jàpp ci rek mu gën a neex. foofu lan lañ tàggoo di nuyu ñëpp vraiment di kontaan ci intervention yi jërëjëf. merci beaucoup merci ah. ñu ngi ba tey ak président benn président boo xam ne moom mu ngi bokk ci commission formation àndoon ak euh, monsieur wadd ñu bàyyi ko mu présenté wu rek wax ñoom lan moo doon seen tànk fii ci Ngoundiane président. asalaamaaleykum euh, waa Ngoundiane région de Thiès ñu leen di leen ziar ñu ngi wax ni depuis trois jours vendredi ba léegi ñi ngi Ngoundiane. ci processus ba nga xam ne MTS mouvement bu ñu naan MTS. bu ñu naan MTS mouvement de tailleurs du Sénégal moom moo ñu indi woon fii Ngoundiane ci commune bu Ngoundiane. ci wàllu formation. ci benn module ba nga xam ni tailleurs yu Ngoundiane ñoom ñoo ko choisir muy costume africain théorie pratique pratiquement boo gisee li ci kaw table bi mooy pratique bi théorie bi moom daanaka def nañ ko depuis vendredi samedi ak dimanche moo doon pratique bi tey nag mooy clôture bi ci ndigalu MTS lañ fi ñëwee nag muy mouvement des tailleurs du Sénégal loolu moo ñu indi woon Ngoundiane quoi pratiquement uh-huh. bu ñu jógee fii tamit nootu buy jamaa mi ngi xaar am na beneen tamit euh, ba nga xam ni président Matar Diène moom moo ko jiite au niveau de Thiès le 27 c'est programme boobu tamit ci ñu ngi ci waa naka MTS loxo mi ñu ngi ci biir bu ñu jógee foofu tamit ñi ngi jëm Ziguinchor le 5 pour les tailleurs de la région de Ziguinchor lépp ci wàllu MTS la waaw. macha allah kon mouvement des tailleurs du Sénégal moom moo ko accompagné kon ban yëg-yëg ngeen am 72 heures ngeen def ko fii ndax lu neex la ndax euh, am ngeen satisfaction wala ci Ngoundiane. vraiment dafa mel ni ñu ngi woon suñu biir kër quoi. parce que yaakaar naa ne Ngoundiane dañu mën gan dañu mën a teeru gan mën nañ ko teral vraiment dafa meloon ni ñun ay héros la ñuy doon daanaka bu ñu naan lay mettre da ngay rus mais dañuy ñëw ne leen ñëwuñu pour jàngal leen dañuy ñëw pour weccoog yéen xalaat parce que nit ki métier mi mu nekk des années am ci soxna tabax ci kër yor ci boppam yor ci ay waajur boo ñëwee doon ne ko li nga war baaxul baax na mën na ko de mais jamono mooy dox te buy dox dangay ngay ànd ak moom loolu rek moo ñu indi pour ñu ñëw jooyante échanger ak ñoom te bi ñu leen waxee loolu comprendre nañ bi ñu duggee ci biir liggéey tamit am nañ ci satisfaction vraiment ak ñoom vraiment amul ci la nga xam ne daal Ngoundiane bu ñu ñëwoon tey suba dañ ñëwaat leen dañuy ñëw. incha allah waaw ba tey ñu ngi ci Ngoundiane nekk ak président national des jeunes monsieur Mor Diop ñu bàyyi ko mu présenté rek après ñu dugal ko ay questions quoi. waaw salaamaaleykum waaw 24 TV. maa ngi leen di ziar baax di leen nuyu man la Mor président des jeunes national ñëwoon fii si formation mbayteen bi Ngoundiane Càngaay vraiment pour ñëw soutenir ko jàppale ko ànd ak jeune Ngoundiane vraiment pour ñu yokk leen renforcer de capacité quoi merci beaucoup jërëjëf. macha allah président Mor mooy président des jeunes nga gis tey jeunes yi nekk Ngoundiane am pas pasu taxawal lu mel nii kon ban appel ngay def jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Sénégal yëpp 14 régions yi 45 départements yi ban appel ngay def ci jeunes yooyu ci mouvement MTS. waaw rawatina MTS jeunesse nag. ñu gën a am taxawaay rek parce que lii initiative bu rafet la. lii tey yaakaar naa li état di Sénégal bëgg tey ñun dañu see fekk ñu nekk ci. parce que dinañ ku commencé wul doo yeggali. te ma dëgg yàlla di remercier Mbaye Tine président. ni initiative bi mu def nii lépp ngir bëgg xale yi seen seen capacité si ñaw bi ñu def nii gën a am euh, talent gën a am talent talent boobu nag li koy mel mooy il faut nga formation parce que ñaw moo toll bu dëgg yàlla état du Sénégal war na gestu ñi nga xamante tey ñooy jeunes yi te mouvement tey du Sénégal mooy MTS jeunes nañ gën a am mobilisation gën a takku surtout MTS jeunesse parce que lii nii tey dafa am solo nekk na loo xamante kenn ku nekk war nga mën a wane sa bopp kenn ku ne war nga mën wane li nga xamante tey moo nekk ci yow parce que yombut c'est pas facile boo xoolee tey ku suma professeur man Abdou Wade vraiment war a def tout Sénégal Abdou Wade mu ngi dem partout dans Sénégal parce que actuellement nii mu ngi war a dem ba Ziguinchor wala feneen ndax état mu ngi ciy teg loxo mu ngi ciy jàpp wala MTS day def ak ay moyens boppam ko

ak RTTD muy télé regroupement des ténors de la région de Thiès télé des artisans euh, ñu toog ak euh, président Ablaye Fall Mbor bi nga xam ne moom mooy président MTS au région de Thiès ñu doon bàyyi président mu nuyoo rek def présentation. waaw salaamaaleykum ñu nuyu képp xam ne assisté nga rek daje bi ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan image foo mën a nekk rek Ablaye Fall Mbor ñu lay nuyu di la ziar di la sant. di bu baax a baax nag ci vraiment àddu ci suñu télé doublement muy seen 24 TV ndax président Modou Seck passage bi mu fi def réalise na fa lu am solo waaye nag télé regroupement bi ku wax regroupement bi nag impliqué képp kuy artisan rawatina tailleur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir regroupement des tailleurs de la région de Thiès ñuy le président Modou Seck ak ay prédécesseur ku ci mel président Abdoulaye Ngom ku ci mel jox seen wàccuwaay di leen màggal bu président ci présentation bi am solo bi waaw dañuy wax ni ngeen ànd ak mouvement MTS ñëw fii ci ngunjaan yow nga nekk président régional Ngoundiane di commune ci biir département bi organisation boobu nan ngeen def ba réussir ko ba ñëw fii tey ci Ngoundiane ko ndax c'est beaucoup lépp nag mu ngi commencé ci benn réunion bureau bu ñu amaloon Fatick euh, foofu la ñu étalé woon benn benn benn programme maanaam campagne élargissement des euh, formation de renforcement de capacité dans tous les sur tous les territoires euh, du pays hmm. donc bu ñu tegee programme boobu ci la ñu ubbi benn liste ñi nga xam ni xay na ay formation intéressé na leen ñu ñu bind ci liste boobu automatiquement ci le le président Mbaye Babacar Tine nga xam ni moom moo yore commission euh, organisation di nekk président bi ci la bindoo ñi nga xam ne mooy euh, Ngunjaan demandé à ce que ñu ñëw fii formateur def ay formation mais dafa demande à ce que ñu bàyyi ba ñu wari tailleur yi gën a mën a am temps euh, ci loolu nag ci la liste bi continuer xam nga ni démarré woon nañ ko Mboro mbooro à l'honneur de l'MPS moo honoré woon Mboro pour ñëw defoon foofu euh, ouverture campagne bi d'élargissement des formations professionnelles et renforcement de capacité euh, ñu amal ko ci cinquante tailleur yi ñu dajale ko ci zone boobu yëpp ginnaaw boobu nag ci le président mbay tuuram daal di jot ñu dajaloo fii ngir defal ko formation boobu yan moyen président ngeen di demee par rapport ak ndax état jot na ca dugal loxoom wala moyens yi seen ay moyen bopp la MTS di demee quoi. waaw MTS nag pour le l'instant ay moyens boppam lay demee ndax MTS euh, vraiment bi mu juddoo ak léegi 2017 euh, xaaruñu état ñu ngi dem avec les moyens du bord les maigres moyens malgré mais tréwul li nga xam ni li nga xam ni xam nañ ni moom la tailleur yi soxla déjà capacité yi am nañ ko ci suñu biir am nañu compétence yi am nañ expertise bi bon ci la ñu ci la MTS tëggoo nga xam ni dafa am ay volet volet formation am ñoo xam ni département de formation ay formateurs yu ñu dajale formateurs yoo xam dañoo am agrément dañoo am xarañte ci li def ñu di leen solliciter un peu partout dans le pays pour wàcc def ay démarches di former tailleur yi ci la ñu tegee programme boobu yaatal ko di di di ñun ñooy laamu suñu poos en fait fii ku fi ñëw tey yaa laamu sa poos y compris yow mii nga xam ne yaa ma dégg micro yaa laamu sa po pour teew feneen fu MTS dem aussi c'est la même chose euh, kenn ku ne am loolu làmb ci sa poos ñu xool nan la ñuy organiser journée bi ba formateurs yi ak yenn besoin matière premières yi nga xam ne danañ ko soxla pour mën a agréer amal formation bi dans les dans les meilleures conditions yooyu bu réussir rek yi ci des yëpp après ñun dañuy serré ceinture bi ngir fexe rek ba tailleur bu fi jógee mën a lu yokk xam-xam. macha allah waaw ba tey euh, ñu ngi ànd ak la seen chaîne 24 ak télé RTT télé regroupement des TIE de la région de Thiès ñu ñëw fii tey ci Ngoundiane fekk fii nag la doyen wala président Mbaye Tine dañ koy bàyyi rek mu présenté wu wax lan la doon moom ci programme bi nga xam ne moom moo ñu fi indi. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa 14 régions 45 départements waaw asalaamaaleykum waa Ngoundiane man la Mbaye Tine doon président association Téere Ngoundiane bokk ci benn mouvement bu ñu MTS mouvement national des terres du Sénégal ñu organisé woon une journée volet formation trois journées volet formation soixante-douze heures volet formation fii ci Ngoundiane euh, mu commencé woon vendredi le vingt et un Euh, samedi le 22 tey la dimanche cérémonie officielle bi di tey le dimanche le 23. Euh, li waral ñu organiser ko tam euh, mooy fi jamono toll fi réew mi toll ñu am association bu ñoo ATM di association Teeru Mondial mm-hmm. mu di premier événement historique boo xam ne moom ñun moo ñu gën a neex ni ndax organisé nañ fi ay programme yu bëri organisé nañ fi ay défilé de mode muy saal bi organisé fi ay gala de lutte ngi def social ñu ngi def lu nekk suñu biir mais bi tey lu tax mu gën ñu neex mooy dafa nekk loo xam ne dafa dellu suñu biir te loo xam ne moo valoriser métier bi mu di loo xam ne moo xew ci jamono maanaam ñaw comme nañ ko waxee kenn du ko mën hmm. ñaw moom heure boo yeewoo bu dee artisan dëgg heure boo yeewoo danga nga koy jàng hmm. da koy jàngiwaat ndax fa la jamono voilà macha allah Mbaye euh, ban taxawaay la MTS def tey ci journée bi ndax dañuy gis tey presque waa MTS ñëpp a ngi président national SG président des jeunes waa Tivaouane waa Mboro ñu ñëw tey MTS ban impact la ban taxawaay la taxawee ci journée tey bi quoi. xëy sax directeur Matar foofu laa waroon njëkkee. Hmm. mais xel day fàttu. macha allah di kontaan ci sama mouvement national di MTS. Hmm. comme niñ ko waxee rek MTS tur bee njëkk a neex. Hmm. macha allah dafa nekk en hmm. nekk ci lu am solo loo xamante ne tey. li MTS di def. état moo ko waroon taxaw di ko fay wala mu koy subventionné. MTS mooy jël ay moyens pare pour former ndaw ñi Sénégal man du ma wax sax Ngoundiane wala may wax Thiès. di canaliser. Sénégal MTS moo di mouvement boo xam ne mën naa ne mooy mouvement jànq. mujjee juddu. gën a rafet gën a baax. pare pour jàppale ay ay ay doomam mën naa ne ñun ay doomam la ñu ñooy association Teye du Ngoundiane di kontaan lool ci kilifa yi fi teew ndax ah, boo dee xool nii sama wet président loo teew na fi jóge ba teewoon ah. ànd ak ñoom Maguette gi ak ñëpp ñi war a am sa secrétaire général ah. nga xamante ne ku mu langul nga baax ku mu teg loxo nga dem jóge bu Fatick taal oto ànd ak délégation am ñëw hmm. di kontaan loolu ci samay confrère hmm. man ni Modou Fall bu xel biso hmm. teew fi moom tam euh, suma président jeunesse Mor Diop nga xam ne suma sama sama deret la sama deret lu xam ne lu rëy lu muy pare jeunesse su MTS Mm. Ah, di nuyu itam suma confrère Ablaye Fall Mboro waaw ah, di nit ku baax nit ku baax ku bëgg mu bi di nuyu Aline Sow mm. moom tam bokk ti moo délégation MTS bi mm. ah, président association téeru téeru Diamniadio mu ngi ànd ak ñoom Moustapha Touré ànd ak le frère xale bu mujjee judd ablaay Pouy vraiment di leen remercier di di kontaan tam sama directeur Bafou nen borom Thiès suma jigéen ñi ñaawul ñii teewal ñu tey mu di mbégte ci ñun ndax ñun moom miin nañ leen saa su ne bu ñu organisé ñoo fi njëkk ñoo fi mujj macha allah waa Thiès macha allah waa MTS macha allah président dernière question bi nag dama bëgg nga woo jeunes yi ci MTS ñu comprendre mais nag jeune commune bu jo euh, bu Ngoundiane ndax mais nag comme ñoom ay séeréer lañ maay seen buur mais dama bëgg nga wax ko ci ci ci seen langue ñu dégg ko nga wax ko ci séeréer ko xam naa man duma dégg mais ñoom dinañ ko dégg <laughs> waaw macha allah Matar Euh, di ziara di kontaan ci seen 24 TV ndax sunu télé la uh-huh. man dama koy tiitaroo saa su boo xoolee samay TikTok samay WhatsApp uh-huh. samay Instagram sama côté bu nekk ñoom rek nga fay gis ndax dañuy yàgg di liggéey ak ñoom di kontaan ci ñoom di wax boo demee nuyul ma directeur ne ko mbaytin dafa uh-huh. kontaan ci yow euh, di nuyu tam waa seen TV nga xam ne sama télé la ndax boo nee Framaale rek presque nee nga seen TV man sama télé la moom man fa laa bokk di nuyu tam 24 euh, Thiès muy site tey tam di kontaan ci ñoom waaw di woo tam jeunesse su Ngoundiane di leen encouragé hmm. ñu dugg MTS soo ne MTS la ñu am journée bi tey bañ ko amee valoriser ko mu toll fii mu rëy bés bi dem ba toll au niveau ah. ba le maire nekk fii ah. euh, président mouvement Ngoundiane ca kanam nekk fii ah. euh, Mod Ning Assane Sène sunu frère Mbaye suñu teew fi démb sunu autorité am ñoom la ñuy tiitaro ñoom la ñu am teew fi ñeen rek la ñuy déploré mooy waa carrière bi ñëwul ku mel ni carrière lay sek ñeneen ak ñeneen mais xëy na bu yoon jeexal waa sud di incha allah danañ ñëw di encouragé bu baax sama ndaw ñaa leen waat bu baax tam ñu dugg ci mouvement national du Sénégal di MTS. MTS Matar ca kaw ca kanam. ci lu baax président merci. waaw xam naa ba tey ñu ngi nekk ak euh, le président Mamadou Seck muy président mu di regroupement euh, des tailleurs de la région de Thiès aussi tamit di membre ci mouvement des tailleurs du Sénégal kon ñu bàyyi ko rek mu présenté wax ñu yëg-yëgam ci ñëw gi nga xam ni ñëw na ci Ngoundiane. président. waaw salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax Matar euh, di nuyu téléspectateur yëpp yi seetaan RTT TV ak Sen 24 donc ñu ngi fii ci Ngoundiane euh, ci dëkku monsieur le maire Mbaye Dione euh, li ñu fi tax a toog nag mooy session de formation ñu gën ko xam ci renforcement de capacité. donc ci cadre yi nga xam ne te euh, organisation MTS mooy mouvement des terres du Sénégal euh, ci plan d'action bi nga xam ne teg na ko en place euh, formé da cee bokk forme ay membres am ci localité bu gën a sori ci dëkk yi donc ñu commencé woon ko nag ci yu bari ci dëkk yu bari defee ko Mboro ak yeneen i gox waaye tey ñu nekk Ngunjaan nga xam ne tey formé nañ fi toll trente deux personnes yoo xam ne yi encadré nañ leen yokk seen xam-xam ci jëm ci wàllu ñaw ndax ñaw moo toll noonu donc loolu nag bu ñu ko mënee tey yàlla ak kilifa yi nga xam ne euh, ñoom ñoo ŋànk MTS di nuyu le président euh, Moussa Mbow waaye di nuyu le président Abdou Aziz Lo Al Amin mention spéciale ndax gis nañ ni euh, bépp jataay bu MCS woote kenn du ko fa jiitu di nuyu le secrétaire général Dame Sarr mi nga xam ne également moom mi ngi def liggéey bu am solo ci MTS donc loolu aussi dañ ciy sawar moo tax bu ñu ñëwee tey ci région de Thiès ñëw ci Ngoundiane commune bu Ngoundiane fekk si monsieur le maire bay Dione ak président Mbaye vraiment du ñu def lu dul rafetlu ko ñëw en tant que président TER Thiès ñëw ànd ak suñuy membre def délégation ñëw fekk si bis bi loolu daal président Matar euh, moo doon teewaay bi tey di doon mbégte boo xam ne bii vraiment daal kontaan nañ ci ci li nga xam ne am na te noonu la ñu fas yéene incha allah rabbi euh, ci région bi ci région bi ci Sénégal gi yëpp ànd ak MTS formé ni nga xam ne mooy seen i membre vraiment ñu ngi koy sant bu baax di encouragé Mbaye di ko félicité mais di félicité également le maire ci accompagnement bi ndax lii buñ ko mënee tey yàlla ak monsieur le moo tax ak ñi ci jàpp ñëpp vraiment ak MTS benn MTS daal mention spéciale. merci beaucoup MTS asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Ngoundiane euh, man la Mbaye Tine président association Teeru Ngoundiane euh, bokk ci mouvement bi ñuy wax MTS mouvement national et du Sénégal waaw may nuyu samay gan di leen dalal fii si Ngoundiane sama dëkk di dalal samay gan fii si Ngoundiane di sama dëkk Euh, ñu organiser woon fii euh, volet formation renforcement de capacité boo xam ne mu jëloon trois jours soixante douze heures ñu commencé woon ko vendredi le vingt et un samedi le vingt deux jeexal ko tey dimanche le vingt trois invité woon ci Sénégal yëpp rawatina waa Ngoundiane di suñuy euh, yaay li suñuy bajale suñuy umpaañ ñu wuy si ñu. Euh, ñu leen di dalal fii ci saal bi muy premier cadeau boo xam ne man en tant que Mbaye maa leen di dalal di dalal te samay gan bu baax mu di waa mouvement national tey du Sénégal jiital ci nuyoo bi suma président Abdou Aziz Lo secrétaire général Dame Sarr ak sumay collègues yi ñëw ñoom Modou Fall président Mor Diop Aline Sow Dem Naajo ak président régional Mamadou Seck li euh, ci teg nag sumay nit ñoo xamante ne ñoom la. ñoo waral lii mu di waa Ngunjaan euh, waa commune Ngunjaan mu di adjoint le maire mbay Sarr teew fi di koo xam te ne dañu yàgg a jàppale ndax lii bu ngeen tuutisee taar beek lépp waa waa mairie Ngunjaan la ndax mënoon nañu xatal boobaa tam dara du mujj fen mais dañuy yaatal événement bépp événement boo xam ne ñu ngi koy organiser fii si Ngunjaan ñoom dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax ñu ngi leen di dalal di dalal tam suñu frère di Assane seen borom Ngoundiane bu bees Assane ñu ngi lay dalal mon frère te di la wax tam mooy bés bi da nga ci dugal sa loxo bu baax euh, di nuyu ñëpp euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax dal jàmm comme tam dañuy ibbi te dafa guddi ñu bañ a guddal euh, sargan nañ leen daal tàllal leen loxo ngeen def ñaan bés bi comme nu mu réussir vole bi bu ñu toll ci càpp gi lépp macha allah terminé à beauté dalal naa samay gan bu baax. dalal naa samay gan bu baax kontaan naa si yéen ñëpp jërë ngeen jëf ba si kanam Aziz Lo Al Amine mi nga xam ne moom moo fi teewal tey MTS c'est le premier vice président ñu koy nuyu moom it bu baax di jox wàccuwaayam di nuyu le secrétaire général du mouvement unitaire du Sénégal monsieur Dame Sarr Fall bu xel bu sow ak sa ñu koy nuyu également jotaay di nuyu monsieur Alioune Sow président des tailleurs de Diamniadio ñu koy nuyu moom it bu baax ci teewaay bi nga xam ne teew na ko aussi ci jotaay di nuyu délégation Thiès bi nga xam ne euh, man maa ko jiite di Mamadou Seck président des tailleurs de Thiès ànd ak euh, monsieur Bafou Mbengue ñu gën ko xam ci Bafou collection ànd ak madame Nenna Diakhaté nga xam ni moom ñaari casquette la fi teewee en tant que trésorière bu mouvement des tailleurs du Sénégal waaye également trésorière des de Thiès ñu koy nuyu moom également ànd ci délégation bi waaye monsieur Makhtar Diène ànd aussi ci délégation bi ak monsieur Pape Mourou Faye bi nga xam ni moom it mu fi teew di nuyu les formateur ñi nga xam ni ñoom la yàlla dogal tey ñëwoon fii doon formé ñi nga xam ni mooy lu toll ci fanweeri ndaw ak ñaar ci session de formation bi gën ko xam ci renforcement de capacité dans le plan d'action bi nga xam ni le mouvement de terres du Sénégal MTS mi ngi koy véhiculer partout dans les quatorze régions du Sénégal ci quarante cinq départements yi loolu aussi ñi ngi ñaan ñu tàccu leen may leen loxo bu baax suñu ñaari formateur boobu di nuyu également bu ñu waxee les formateurs wax ñi nga xam ne également ñoom la ñu formé aussi ñu ngi leen di nuyu di nuyu invité yu fi teew yëpp euh, ci présentation bi daal ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp duñu guddal euh, président Maguette Guissé de Tivaouane aussi le doyen Maguette ñu ngi koy nuyu moom it bu baax di ko jox wàccuwaayam ak teewaayam te gis nañu vraiment fépp foo xam ne bi MTS ma nga fa moom it mu nekk ci wetu président Abdou Aziz Lo Al Amin di nuyu nag également le président des tailleurs de Ngoundiane monsieur Mbaye Tine moom ñaan ñu daj ko bu baax a dañuy guddal kàddu yi mbégte la ñu am ñu ci teew ci jataay bi tey vraiment daan fi teew ci ay jamono en tant que membre tey nekkoon fi chef cérémonie ci bépp manifestation boo xam ne bi MTS wala les tailleurs de Ngoundiane ñu ngi koy organiser ñu jël ko boole ci dans le cadre de l'organisation yàlla dogal ren bi fiy ñëw ñu indaale fi ndombal tànk président des tailleurs de Thiès ba ñu ñëwee ñu cëral ñu aussi nañu ñu ñooy les modérateurs yi nga xam ne ci cérémonie bi nga xam ne moom la fas yi yéene def tey ñu ngi koy sant bu baax di ci gërëm di sant tailleur mondial yëpp dañuy bàyyi rek le président Mbaye Tine moom mu joxe mot de bienvenue par rapport à l'organisation par rapport à ses invités bu ko defee incha allah rabbi ñu jublu si liggéey ñu jublu ci li nga xam ni moom moo moom mooy cérémonie bi ak discours yi ak orateur yi bu ko defee ñu bañ a guddal kàddu gi di nuyu également Sidi Gueye euh, nga xam ne kenn la ci MDS moom it délégation di suñu xarit macha allah ñaari fan yu nekk mu wooñu moom it aussi mi ngi ci def délégation ñëw teew ci ci mbooloo mi kon ñu ngi koy nuyu baax kon président Mbaye vous avez la parole. mu nekk un maire référence mu nekk un maire modèle parce que xëy na ñu dëkkuñu mu jaat mais ñu ngi suivre ay activités bu baax a baax di suivre aussi lu baax li muy def. que ñun aussi c'est pas la première fois pour ñu ñëw fii dafa naa ni teeru nga ñaari miin nañu fi bu baax a baax ndax ñëw nañu fi ay programme yu baree baree bari te bu ci nekk rek suñu ñëwee cant la ñuy fekk waa Ngoundiane defal ko seen maire kon boog monsieur Mbaye ñu ngi lay yóbbante cant ak nuyoo ci monsieur le maire Mbaye Dione di ko wax ni li ñuy def ci dëkk bi ak ci artisan dëkk bi ak ci surtout les tailleurs ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ñoom di liggéey au niveau national kontaan nañ ci moom di yóbbante encore une fois ci moom di wax ne ñu ngi koy tàllal loxo ci lépp lu ñu mën a jàppalee pour ñu gën a am ay ouverture pour li ñuy sonn ci xale yi ñu man ko concrétiser boobu ëllëgee vraiment kenn ku ñu nekk mën a gis sa bopp ci li ñuy dox maa ngi nuyu aussi ñi nga xam ni ñoom lañu yàlla booleel ñu ànd ci liggéey mu def secretaire général LG Dame Sarr parce que liggéey bu nekk ñun MTS dafa am nañu organisé woo monsieur le maire loolu aussi dañ koy war a leeral ci sa bopp parce que ni ñuy organisé woo parce que monsieur Moussa Mbow mooy le président du mouvement MTS du Sénégal yàlla dogal aussi mu voyagé ñu yore intérim bi mais intérim bi damay wax ni yore bi ñu ko yoree nomination la rek mais kenn ku ci nekk ci ñu toog fii ci membre MTS yi yaa ngi ciy doxal sax lu ëpp man lu ma ciy doxal tey suñu ñëwee ba agsi ci niveau bi équipe bi ñu àndal ñoo tax ñu agsi fii parce que c'est pas pour rien pour yàlla boole ko dëkk Fatick boole ko dëkk Thiès boole ku dëkk Mbour boole ko dëkk Ziguinchor ainsi de suite ba kasu ko région yi jeex loolu su amee initiative boobu ci président Moussa Mbow la ko yàlla jaar ne ñu ànd ci ak moom liggéey ci liñ ci liggéey ba yàlla dogal moom mu jógee fi dem voyagé dénk ñu intérim bi mais bi mu ñu ko dénkee aussi équipe la ñu àndal wax naa ko lay équipe bi mooy ki nekk tekk sama wet mu le secrétaire général te ku xam association lu muy doxee ak mouvement da ngay xam ni bu secrétariat bi doxee rek lépp dox même ba ci état secrétariat bi moom bu doxee rek déjà lépp dox kon mention spéciale à monsieur Dame Sarr moom aussi bëgg naa vraiment ñu delloo ku njukkal boobu doon la nag ñi fi nekk ñëpp a taxaw ñi fi nekk ñëpp liggéey waaye nag tàgge boo gis am na jàppal jiw kon monsieur Dame ñu lay sant di la gërëm ci taxawaay boobu parce que man en tan que en tant que vice président euh, wax dëgg yàlla man dama naan daf ma day toog rek woo ma ñu ma lii ma ne ko loo def baax parce que xam naa ne du nit ku caaxaan ku dëggu la di jël man am na sax foo xam ne man dama fay war a teew dafa sama alal moom moo koy def alalam ba pare rendre ma compte kon ñu mel noonu su ngeen àndee di liggéey ñu nekk ay ndaw ñu jox la cër boobu dafay laaj bu mbooloo mu mel ni toogee ko delloo la ñu jugal mais fi may jeexale rek mooy jële président Abdou Khadre Wade mooy le formateur parce que wax naa ko léegi ni ko li ngay def nii ñun ñëpp mën nañ koo def mais yow la la ci yàlla jagleel loo xam ne jagleelu ko ci kenn ci wàllu ouverture am ci xolam ci disponibilité am ci yéene nit ci am métier. kon suñu yàlla boole ñu mel ne moom ak njaasakaay ak équipe bi ñuy àndal ñuy mën a doxal lii tey ba tey MTS am un programme boo xamante ni tey programme bi xaaruñu ci état parce que tey lii fi am ni yëpp. tey MTS moo ko initié ni ñun du xaar état wax naa ci Fatick bi ñu demee réunion de bureau ci LG Dame Sarr bi ma waa TFM interviewé dama leen wax ni leen li état bëgg ñun am nañ ci pexe. Mhm. kon monsieur le maire loolu tam dañ koy yóbbante. am nañ ci pexe parce que dañoo bëgg xale yi liggéey mais nañu dooleel suñu dooleel ak xale liggéey centre de yi ñuy defar ay milliards lañ ciy investir ñun du ñu def ci ñun sax lu mat milliards ñu def liñ bëgg. parce que tey jii ñi fi toog nii ñëpp ay chef d'entreprise lañ ñi fi toog nii ñëpp ay porteur de projet lañ ñun rek ay projet lañ jarul sax ñu ñuy ay projet parce que déjà ñun organisé wu nañ ba pare te xam nañu fi ñu jëm kon nag encore une fois comme yéen seen kàddu day jote foo xam ne duñ fa àgg bëgg nañ ngeen àggal leen ñu loolu ba président Macky Sall initiative bii mu jël loolu moom yóbbante bu ma ñor la te xam naa ne bu ko monsieur le maire mbay Dione déggee président Macky Sall dina ko jot te xëy na sax nekku fi mais mi ngi fi parce que kenn ku nekk nit ki nga xam ni yaa ko teewal dayoo bu toll nga yor kon tey dayoo monsieur le maire rek nga jox encore une fois ñu ngi jeexal di sant le président Mbaye Tine di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali yéeneem di sant ñi ñu àndal ñëpp en délégation ñëw fii Abou Khadar Wade xëy na li ñuy def ni yàlla suñu borom moom moo koy fay yàlla ko yàlla fay le grand Bafou Mbaye moom laa wax toujours ni ko tu es le président des présidents. moom toujours il est à côté bëggul sax feeñ. te joué na ci MTS rôle boo xam ni macha allah bari na sax sama maas gi di feeñ ca lam ca def def ñu ko ci. kon moom aussi mention très bien ak Ndeye Diakhaté aussi ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que jigéen la joo xam ne fu ñu ànd ci Sénégal fu ñu mus a dem teew na fa kon dafay jaaru suñu demee tey bay def ay remise de diplôme. ñu teew fi ñu sant ñi fi teew ñëpp sama président Mamadou Seck maa ngi lay sant di la gërëm vraiment encore une fois di sant ñi nga xam ñoo doon def formation li ngeen fi jàng yàlla na ngeen ko muurloo su ngeen ko muurloo ba pare yàlla ngeen ko jariñoo encore une fois sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah di ci teg le mouvement national de tailleurs du Sénégal je pense représenté par euh, monsieur Lo bu fekkee juumoo ak monsieur Sarr di ci teg également le président de l'association des tailleurs de sama frère sama xarit mbay Tine di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen remercier également ci invitation bi di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak ndax dañoo jóge ci bésu it muy bésu korité di ñaan sunu borom boole ñu baal nangul nu sunu ñaan lépp loo xam ne mébét nañ ko fii ci salle bi sunu borom may ñu ko dama am fierté ñëw fii tey parce que tout simplement dama bokk modestement ci peut premier partenaire yi nga xamante ne gunge nañu l'association des terres de Ngoundiane bu ñuy soog a jóg comme ni ko la municipalité de Ngoundiane di def te du ko bay di def saa su ne bu ngeen ñëwee tey ngeen am benn volet formation pendant trois jours à Ngoundiane dafa fekk na peut-être da ngay ñëw ci dëkk boo xamante ne dañ leen a xëjal jàppale leen pour ngeen mën a réaliser loolu bu fekkee da ngay da ngay ñëw ñu xatal leen. indi leen ay tolof tolof amoo leen site amoon leen abri amoon leen les moyens pour def ko peut dina métti pour ngeen réaliser ko kon côté boobu également bu ñuy remercier municipalité Ngoundiane la la ñuy remercier à travers véritablement le tête de file le maire Mbaye di remercier également ay doomu Ngoundiane mooy les tailleurs damay faral di naan yéen vous des avocats pour Ngoundiane ñaan nee naa mbay en maintes li ma gëm tayaru Ngoundiane organisation bu ñu am bu fekk na tous les secteurs d' activité noonu la ñu amee organisation kon Ngoundiane dépassé na fi li ko waral ñoom dañoo jël drapeau Ngoundiane xar seen tànk tubéy mu jaraleen lu ne di jël ay initiative personnelle di dépenser seen xaalis di wute ay partenaires pour Ngoundiane mën a jëm kanam te je crois que secteur yëpp loolu la ñuy xaar si ñoom kon acteurs Ngoundiane yëpp politique comme non politique lu ñuy xaar mooy ñu gunge ndaw yi ñu jàppale leen ñu mën a réussir ci seen mission ci gëm naa li war a mën a nekk la. am na li monsieur sarwax tout à l'heure frappé na ma tellement parce que. état am na mesure yu mu jël pour ndu mooy jeunes yi ci yu bëri mais yéen da ngeen ne lanteur administrative yeeg ay blocage yu bëri day tax souvent bu ngeen xaaree état ci yéen yi da ngeen di am retard raison pour la laquelle ngeen di jëlal seeni bopp seeni prop propre initiative je crois que loolu bu fekkee à la base nit ñi dañuy jëlal seen bopp seen initiative du wut ay partenaires di dépenser seen xaalis état bu ñëwee mbir mi day yomb parce que état mënu régler lépp te développement ça commence à la base nii la maanaam ku nekk fi nga nekk li la war sa devoir sa responsabilité da nga ko war a assumer ba mu mat sëkk état soog a ñëw gunge la nga soog a mën a am li nga am kon ñu leen di remercier di leen ci féliciter par rapport à cette initiative ñun de mënuñu dañuy jéem rek ay ndaw lañu waaye saa su ne on est ouvert pour waxtaan ak yéen gunge leen en fonction de nos pour fi ngeen bëgg ak ngeen ak fa am nañu volonté bi am nañu yéene bi di ñaan suñu borom may ñu mooy ba nga xam ne mooy dina mën a méngoo ak yéene yi te gëm naa li war a ma nekk la ko parce que góor mu ngu njaan moom lu mu mën amul lu mu mënul bu ñu booloo bokk ndey bokk baay di xëccandoo di doorandoo amul lu ñu mën réaliser au niveau de Ngoundiane

niñ leen defale loolu ñu defal leen leneen secteurs yi ñu organiser leen ba nga xamante dinañ am ay kayit am légalité am légitimité lu ñu bëgg secteur bancaire yëpp ñu mën leen a gunge pour véritablement lu ñu bëgg a am au niveau de Ngoundiane man ko am te gëm naa li war a mën a am kon véritablement duma ma guddal maa ngi leen di remercier ci invitation bi parce que nit ñi bëri nañ fi du ma tous xëy na ma damay jéem rek kon mën naa leen lii sa chance la ci man opportunité la ci man pour ma ñëw saafantoog yéen waxtaan ak yéen gëm naa ne bu ñu booloo bokk ndey ak baay amul lu ñu jombul au niveau de Ngoundiane waxuma la au niveau du Sénégal donc di leen remercier président di remercier assistance bi ñu ñëw teew yépp di ñaan lii ñu def ko ay ati ati ati ati at ba nga xamante ne di ngeen di continuer di représenter Ngoundiane partout parce que tabaski buy jot korité buy jot am na ay doomu Ngoundiane yoo xam ne danga leen dégtale à travers défilé de mode mais loolu fierté la pour Ngoundiane. di nuyu suñu yaay yi fi teew yëpp ak suñu rakk yi di rafetlu rek li nga xamante ne moo fi xew ci ñetti fan yi nga xamante ne ci lañ nekkoon di di ñu formé di sargal suñu formateur yi parce que li woon fii lu am njëriñ la ci ñun. lu am njëriñ la ci ñun xëj na yokk na ci suñu xam-xam ci ci ci lu bari lu tax na ñu leen di ñaanal yàlla yokk seen xam-xam bu baax yokk seen wér yokk seen warse kontaan nañ ci bu baax est-ce que mën nga bi ngeen doon jàng ban la bi baax na costume africain lañ doon def nan ngeen ko jàngatee par rapport bu njëkk ba ak léegi bi ngeen defee waaw bu defee formation bi war nañu lu bëree bari loo xam ne ni ñu koy defee ci formation bi bokkut woon ak ni ñu ko doon defee. Mm-hmm. kon am na lu bëri loo xamante ne jëlee nañ ko ci mm-hmm. xam ne bu ñu delluwaatee suñu atelier dinañ mën a changer lu bari ban message lay lancer par rapport ak ñaan formation lay tardé waaw message bi ñuy lancer rek mooy ñu ñu gànn jàpp affaire bi. ah ñu def woon formation beneen yoon ñu fexee def formation bi parce que am na solo trop am na njëriñ trop trop waaw dina tax ñu gën a améliorer suñu liggéey bu baax a baax am na solo bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñi teew fii yëpp di jiital ci nuyoo bi le maire Mbaye Dione ak ki nga xam tey moo ko fi tegal teewal muy monsieur mbay Sarr nuyu aussi le président des mouvements des tailleurs du Sénégal tey ki fi nekk mooy monsieur Abdou Aziz Lo ma nuyu aussi. Euh, sama président muy président Mouhamadou Seck muy président groupement des tailleurs de la région de Thiès muy suñu sens ñun waa MTS muy mouvement des tailleurs du Sénégal yaakaar naa ni waa MTS tey bokk na ci seeni rêve ak seeni ñaan ñu am président bu xam ni Thiès day bokk ci mouvement des tailleurs du Sénégal te yàlla may nañu ko mi ngi nii toog muy monsieur Momadou Seck may nuyu aussi monsieur mbay Tine di président Taïru euh, Ngunjaan muy aussi membre euh, ci gën a mag ci MTS ci mouvement des terres Sénégal vraiment mu ciy jàmbaar di ci liggéey liggéey boo xam te ni kenn mënu koo euh, weddi kon donc ñu ngi gërëm monsieur Mbaye Tine di nuyu di nuyu aussi suñu secrétaire général monsieur Dame Sarr comme ni ko président waxee. Euh, euh, liggéey yaakaar naa ni secrétaire général moo yore lépp bu doxee rek association lépp day dox te macha allah lépp nu mu war a doxee moom mi ngi koy dox la noonu kon donc ñu ngi koy gërëm aussi di ko sant di nag ci tënk délégation yu jógee Dakar président mu président Modou Fall ko délégation yu jógee Tivaouane yu jógee Mboro président Abdou Fall ñi jógee Thiès kenn xam lu di beral aussi ci waa Thiès suñu kilifa. muy président euh, Bafou Mbengue ni ko président waxee di membre clé bu MTS mouvement des tailleurs bi Sénégal coowam bëriwul kenn du ko gis comme ni ko waxee mais li muy liggéey ci suuf lu rëy rëy rëy la donc ñu koy gërëm di ko bon à propos euh, formation bi man dama di ndaw MTS dañ may woo rek ni ma demal bërëb sàngam nga euh, formé au moo nag lu ma ciy laaj ci wàllu MTS parce que yaakaar naa ne tey bu ma Sénégal xamee ba ay ONG di ma jël dama ma yóbbu partout dans le Sénégal MTS moo tax. kon yaakaar naa ne du du gor wala du du may taxaw di laaj MTS xaalis pour ay membre MTS. képp ku bëgg formation ci Sénégal foo mën di noonu waxal ak bureau MTS man dañ may woo téléphone rek ni ma demal bërëb sangam nga former leen du ma laaj fan la du ma laaj kan la du ma laaj lu ñu fay def. damay jël sama sac rek dem bis ma demee mu jeex ma jëlal sama sac ni ma maa ngi ñibbi amul dërëm lu may laaj ci MTS. may nag kontaan trop tey bi ma ñëwee fii ci Ngoundiane njaan fekk fii vraiment ay ñoo xam ni ay sama mbokku tailleur yoo xam ne ñu bëgg lii li ñu ñuy def te ñu fekk aussi ñu mën a ñëw macha allah parce que ñoom ñëpp pratiquement. ñi ngi Dakar ñii ñi ngi Touba ñii ñi ngi ci Canaba mais vraiment li ma waxoon ñëw ñu fi pour jàngal kenn dañuy ñëw rek pour ñu changer parce que métier moo demee noonu chaque mois chaque année dafa ay changement yu am euh, rawatina léegi ba lu mel ni costume africain xewee ak kubu pantalon. ginaa yi bëgg ko ñëpp bëgg ko àdduna yëpp bëgg ko yoon la day jekk bu ñu demee benn diir ñu toog ñun ñëpp woote waat ñun ñu toog waxtaan ci suñu métier xool lan la ñuy changé ak lan la ñuy doon loolu rek moo nekkoon formation bi mais nekkul dañoo ñëw pour jàngal kenn ndax yaakaar naa ni mu ko waxee. kilifa gu jàng métier bu man ko yor place am yor ci këram takk ci jabaram def ci léppam kooku amatul lu ñu koy jàngal mais nag dina yàlla dina jaadu ñu ñëw waxtaan suñu métier xool lu ñuy dolli ak lu ñuy changé loolu rek mooñ fi indi woon vraiment may gërëm ñi nga xam ne ñoo def formation bi kontaan naa ci ñoom waaye nañ seen bëgg-bëgg bala may xëy si fi fekk ñu toog bu mu wàccee fi laa andi bàyyi kon ñooñu vraiment loolu rek mooy li nga xam man moo ma ci soxal léegi li nga xam nag moo ma ci gën a soxal mooy li ñu jàng tey réaliser ko muy ay costume africain nii nii ci kanam ñëpp di ko gis fi nañ ko tracé fi nañ ko daggee fi nañ ko ñawee ci trois jours. li may ñaan mooy bu ko kenn bàyyi kenn ku nekk boo demee sa sa atelier na nga ko continuer di ko def di ko def di ko defaat ba kër nga koy gën a miin loolu rek mooy li li ma ci neex loolu mooy li ma ci bëgg loolu laal moo doon kàddu yi may sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy sant yàlla julli si yonent bi bu baax a baax di leen wax ne Ngoundiane fier na ci accueillir activité yu mel nii li tax ñu am fierté accueillir activité yu mel nii nag mooy dafa lu ñu gëm dañu gëm ne Ngoundiane mën na nekk la centre du Sénégal bi may wax la centre du Sénégal nag waxuma diggu Sénégal ci distance mais ngunjaan war na nag dëkk boo xamante ne fu waay jóge Sénégal ak loo mën a soxla boo ñëwee ngunjaan nga mën ko faa def ci jàmm ak salaam te du rus te waa Ngoundiane du ñu rus loolu moo waral ñu xar suñu tànk tubay ba saal bu mel nii am fi du benn nag ma koy wax gan yi du benn su ngeen jógeen fii dem fa ma dëkk fa lay jàkk di ngeen fa fekk saal bu mel nii gëm naa ne sax boobu moo dàq bii wallaay lazim c'est une fierté pour nous waxuma ko pour damu ko mais dama koy wax pour dafa am concept bu ma gëm te dama koy wax chaque jour man damay wax ne nañu décomplexer le monde rural monde rural nitu nitu àll dafa am lu bari lu ko tardeel te li ko tardeel li ci bëri complexe def ci bopp jàpp ne waroo dem jàpp ne bokkoo ci liy doxal réew mi jàpp ne da nga war a nekk ci ginnaaw rek jàpp ne dañ lay yóbbaale ñoom dañu gëm ne loolu dafa war a deñ loolu moo tax loolu moo tax ñuy réaliser lu mel nii effectivement li tailleur yi Ngoundiane yi def tey xam ne ñoo ko moom mën ko utiliser mën a dem jëli ay geneen doomu Sénégal indi leen ñu mën ko def mais noonu la ñu bëggee keneen ak keneen ak keneen koo xam ne yaa ngi biir Ngoundiane nga mën a utiliser noonu salle ak leneen leneen lu ñu fi def yàlla xam na bi ñu koy def am na ñu ne woon jaru ko xaalis bi ngeen def fii feneen soxla na ko mais ñun dañu jàpp ne àdduna moo tëddee noonu boo xëyee sa kër joxe dépense ginaar sax am na ku mën a taxaw ne bu naa mënoon naa def miche nga joxe miche yu ñu ne dafay tiitaru de am na ku mu dendal koo xamante ne amul njëgu jën àdduna moo tëddee noonu on on accepte mais ce qui est sûr et mooy tey kuy doomu mu ñàkk ku ne y compris ñu ko doon bañ boo fi duggee kontaan man ça c'est le première message daf may jox transition ma ñëw nag ci bés bi mouvement des tailleurs du Sénégal foofu lay njëkkee le mouvement des tailleurs du Sénégal bépp doomu ngu ñaan da war a fier xam lu tax ci war a fier Mbaye dafa ci mouvement des tailleurs de kii du Sénégal national bi laa wax Mbaye Dione waxuma Mbaye Tine Mbaye Dione laay wax le maire de Ngoundiane Mbaye Tine dafa di doomu Ngoundiane dinaa ñëw ci moom léegi bokk ci mouvement des tailleurs du Sénégal mouvement bi war a def association euh, assemblée général constitutive à Saly Mbour Palm Beach ñuy wut ay partenaire ku nekk wut moom mu dem fu mu yaakaar ne doomu Ngoundiane laa yaakaar muy maire Mbaye Dione mu ñëw ci maire Mbaye Dione maire Mbaye Dione jël engagement ne dinaa leen fayal salle bi ngeen koy defee hôtel man dinaa ko fay kon kenn njëkku ko bokk ci MTS mais yemul ci jour boobu jour bi muy fay bi muy jox mbay xaalis bi jour boobu la wax mbay pour ma woon leen rek nan la bëggee Ngoundiane te loolu dafa war a nekk si ñun doomu Ngoundiane yépp jour bi muy jox mbay xaalis bi la ko ne mbay mais gis naa ne yaa ngi sonn ci mouvement bi baax na trop c'est au niveau national mais mbaa coono bi nga ciy am ni est-ce que doomu Ngoundiane yi dinañ ci gis seen bopp wallaay lazim ah foofu nag laay ñëwee ci mbay mbay mbay mbaytin mii parce que nit day dégg daaj mbay jot du tailleur mën na am xaalisam jox leen mën na am idée wax leen mais xamul tailleur ngu ñàkk bu paasee idée bi nag mbay mbay xar ci tànk du wayam di ci dox guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ba taxawal association des tailleurs de Ngoundiane mbay gàcce nga la ma dégg nga message mbay acteur de développement yi nekk nguñaan yépp déggee wen noonu message yu Mbaye Dione kon Mbaye Dione du amal problème wallahi lazim kon du am problème association des tailleurs de Ngoundiane bokk na ci association yu mujjee juddu fii dama koy wax ñun fekk nañ fi ay association on a fait dix ans ici plus de dix fekk nañ fi ay association ay association juddu nañ suñu kanam mais li association des tailleurs de Ngoundiane réaliser en terme de citoyenneté en termes d'éveil yee nit beneen association def ko nañ ko wax tëddee. MTS mi ngi di 2017 ñii après MTS la ñuy judd kon donc amaguñu 5 pour wax ne ne rek ne ils sont engagés ñaata défilé ngeen organisé ko. seen ñaar première bi da ngeen ne fii ngeen koy defee Ngoundiane ah c'est une fierté. mais ñun waa mairie ñun fierté bi ñu gën a am ci yéen peut-être xeeb ngeen ko mooy 2020 Covid dafa dugg Sénégal ñu koy wax corona ñëpp tiit ñëpp jóg ku nekk di def ay effort état bi woote effort national ne nañu contribuer ñu am fonds spécial ñu dem ci mairie yi collectivité territoriale yi ku ci nekk di woote pour ku ko jàppale pour ñu mën a def en face xeex ak feebar bi yéen balaa mairie ñaan di woote balaa kenn di woote ngeen génne seen enveloppe ñëw fëgg mairie bokk ngeen ci ñu yee ñu boobu Ngoundiane amagul benn kaa boobu amaguñu comité bu taxaw ñu ñëw indi seen xaalis ne dañ leen di jàppale ci xew corona bi ku ci defati dërëm ci seen kaw dërëm la tegu loolu acte de citoyenneté la boo xamante ne mënuma koo ñàkk a di remercier tous les tailleurs de Ngoundiane jaarale ko ci seen président di wax ne on est fier de vous on est fier de vous collaboration bi dina continuer euh, vendredi la ma weer wax ne ma tailleurs yi am nañu cérémonie le dimanche dinaa dem Ngoundiane le samedi mais du ma fa fanaan mais dama bëgg dimanche nga nga nga présidel ma cérémonie bi vendredi la ma ko wax ce matin à 9h 9h07 minutes booba sax jógaguma sama laaj. la ma envoyé message ne ma boo demee lii nga may waxal. dama wax Isma ne ko pour ma bañ a trahir message yu maire dama koy liir ci français ñëpp dégg su ma paree ma tekki ko ci wolof ngeen xam lan la wax. maire daf ma ne. bonjour monsieur le maire. pour la cérémonie de cet après-midi il faut insister sur l'engagement du maire engagement la wax de du maire. et du conseil municipal à les accompagner dans les projets et le rayonnement de leur association en insistant sur les points suivants. La disponibilité des équipes de la mairie pour délimiter dans les meilleurs délais le terrain affecté à l'association. La mise à disposition d'une subvention de 1 million de francs CFA cette année, année 2019. pour le fonctionnement de l'association pour seen fonctionnement association nee na à partir de lundi demande bi parce parce que demande bi ak sa dossier association parce que trésor boo fay génnee xaalis foog yow nga def demande bi expressément nga indi ko mairie mardi Cheikh Kandji def engagement bi nee leur chercher une audience auprès du ministre de l'Artisanat pour demander des moyens pour la construction de leur siège et du centre de formation objet de l'affectation de la parcelle. nee na bi ñu jógee fii moom day engagé nee na aussi leur mettre en rapport avec le CMS pour la signature d'une convention afin que les membres de l'association puissent bénéficier de crédits directs. Nous l'avons fait avec les employés de la mairie. l'avons, nous l'avons fait avec les employés de la mairie et nous le ferons Merci pour la disponibilité et bon léegi ci wolof Mbaye Dione ci suba bi ma yeewoo message bi ma gis mu envoyé ma daf ma ne bu ma demee ci gàttal naa wax tailleur yi ne ñeenti engagement yi moom moom jël na ko lu njëkk ci engagement bi mooy dañ leen a jox benn terrain fii ci Ngoundiane terrain boobu nee na équipe am équipe technique am nga xam ne Cheikh ñi ngi dëkk cangaaj moo ko dirigé pare nañu ba su ngeen paree à partir de mardi ngeen ñëw ñu délimiter leen seen terrain bi jox leen seen terrain kayit yi moom jot ngeen ci euh, nee na dina leen jox un million subvention un million de ces francs CFA bi mu jógee foofu nee na dina engagé wu wutal leen audience ci ministre bi nga xamante ne moo yore affaire artisanat moo boot te tey te mu bokk ci ñi boot tailleur yi euh, pour terrain boobu ñu leen jox ñu mën am ay moyens yu ñu ko tabaxee def fa de formation nee na itam bu biñ bu fi jógee dina leen boole ak waa CMS CMS mooy Crédit Mutuel du Sénégal yàlla dogal na jiite na ko lu mat juróom benn weer moom wala ñu ubbi compte justement mu defal leen convention boo xamante ne di ngeen fa mën a àbb xaalis pour mën a def seen activité comme nu mu ko defalee agent wu mairie Ngoundiane njëriñu convention bi nag mooy mu wax leen ko tey man yow man kese su ma jógoon dem di la ji banque ba am na yenn garanti ak yenn cambar yi mag banque bi di càmbar xëy na su ma amul garanti wala su ñu amul kóolute gi ci man du ñu ma mën a lebal mais su amee convention convention bi daf may couvrir daf may dimbale te daf may yombalal parce que dafa am keneen ku la garantie ku dul yow sa jëmu bopp loolu mooy njëriñu convention bi nee na loolu dina leen ko doxal ci crédit mutuel du Sénégal lii la ma mbay jon yóbbante ci yéen leneen li ma ciy teg euh, monsieur le président dégg naa sa yóbbante bugguma woon wax dara parce que avant ma liir li ma mes maire yoon ni mais gis naa ne quelque part ci li ma maire wax tontu na lu bëri ci sa sa ay yóbbante de même que le SG Dame Sarr li ma si yor mooy dama leen di gën a encourager di leen gën a ñaax man dafa euh, dama bokk ci li ma gëm ak di ko wax tous les jours mooy développement képp ku yaakaar ne da nga toog fi ngay toog développement ñëw fekk la fi nga nekk ne la maa ngi nii yaa ngi nax sa bopp. te je me gëm ne aussi il ah, y a pas d'acte de petit acteur ou de de de grand acteur le développement c'est un kenn ku nekk secteur bi nga nekk boo ci loolu def ca li nga war a def ñu kenn bañ a xaar sa moroom bés bu ñu dajee rek dañuy gis ne développement taxaw na. yéen nag gàcce ngalamaa gis naa organisation c'est vrai que aujourd'hui le problème de l'emploi au Sénégal ni ñu ko bëgg a man fonctionnaire laa d'abord mais élu la sama kàddu mën na bañ a kii mais li ma gëm laay wax ni ko état bi bëgg a du ñu génn ci coow li li tax du ñu génn ci coow li mooy dama gëm ne état amul pexe amul doole bu mu mën a absorber emploi au Sénégal amul amul y'en a bu ñu nax suñu bopp amul y'en a léegi nag ñi mën a tax nit ñi liggéey bu ñu leen tuutalee sewal leen mais du ñu jóg ci problème bi du rouleau compresseur la dafay xel di dellu siwaat di delluwaat di delluwaat di delluwaat baykat bi nañ ko fekk fa mu nekk dooleel ko wan ko ne ko sa mbay mii bu amul Sénégal du dox bu ko defee doomam sa war a nekk baykat ni moom tailleur bi ñu def ko noonu keneen ñu def ko noonu keneen ñu def ko noonu mais bu ñu bëggee gëmloo nit ñi ne lii yëfu baadoola la lii yëfu baadoola la ñëpp yaakaar ne war nañoo dem nekk kii moo tax nit ñi def poli politique liggéey di loolu doo nga tax nit ñi def politique liggéey ku jàng tuuti am sa bac am sa licence yaakaar nga ne voilà ben waratuma dem bay voilà waratuma nekk terre wala et cetera et cetera il faut ñu décomplexer nit ñi Sénégal am na liggéey métier yaa ngi fii mais fuñ ko foog foofu la nekkul bu ko ñëpp gémmewul ni yéen. defe naa que ne dinañ ci génn man encouragement yooyu laa leen bëggoon wax pour wan leen ne yéen ngi ci yoon bi bu leen bu leen bu leen bu leen man ngeen di ji garab gi nag bañ a fekkee meññeenteef bi mais ak fu leen meññeenteef yi fekk yàlla xarañ na xareñ goo xamante ne tiyaabo gi moom ki ko sos dina àgg ci moom wasalaam mbokk dañuy tëjaat comme le maire bu waxee rek mooy suñu kilifa euh, léppay lépp léppay tëju en fait ñu gërëm ndax woote ñu wuy si la dafa neex ñun dañuy woote ñu wuy si ñu woote plusieurs fois ñu wuy si ñu mais bi tey daf ci rawate di gërëm bu baax suñuy xarit yoo xam ne dañu déplacé wu jóge ba dakaar ku ci mel ni président Modou Fall président xel Pouso doon suñu xarit déplacé wu jóge ba dakaar ñëw Aline Sow jam ñaajo ànd ak ñoom Ablaye Pouy ñoom Tafa Touré ak suma xarit suma frère Mor joo président des jeunes MTS di nuyu bu baax di gërëm bu baax sunu sunu directeur Bafou Mbeng léegi léegi la yegg programme bi taal otom ànd ak waa Thiès yëpp ñëw di gërëm bu baax tam sunu président Abdou Aziz Lo nga xam ne mu ngi jóge bu Tiwaawan ànd ak la secrétaire général Dame Sarr jóge bu Fatick ñu bàyyi seen temps bàyyi seen lépp bés bi bu taaroo ba toll fii ñoom ñoo tax di gërëm bu baax tam suñu autorité muy ñoo xamante ne ñun xeebu leen ñoom la ñu am mën naa ne su ma limee monsieur le maire rek wax naa ñëpp mais il faut ma boole ci Assane Sène comme ni mu ko waxee Assane suñu frère Assane lépp loo xamante ne ñun dañ ci dugg ci wàllu association Assane da ciy jàpp ba ñu commencé ba tey ba fu ñu toll caméraman yi ngeen di am na lu ci bëri loo xam tam lu taaral bés bi asan loxo ma ngi ci macha allah le maire kon ngeen xamee ko noonu yéen tam ñu ngi leen di gërëm ñi nga àndal ko ci mel ni Isma ndax Isma moom xam naa ne waxuma la wali ma tamee toog mais ku ko sonal la ak euh, sama frère sama xarit Aliou Tine ngi leen di gërëm waa di encouragé ngeen gën a jàppale ndaw ñi ndax li yombul ni ko doyee waaye Abdou Abdou Wade yi fi il faut mu am suivi mu am suivi tam dafa laaj moyen ndax kenn kon a xam ne téer yi ngay gis am na nañu atelier am na ñu le reste mooy financement fa la jamono toll moo waral li ñu def te li ñu def du ndaw ndax veste yi nga gis ñu ñëw xëy na waruñ ko fi présenté sax am na loo xamante ne yéen ñu ko war a defal ndax am na quelque euh, ñoo xam ne ñu ngi seen biir dañ leen fi war a décorer ku ca mel Ilia yi gérer salle bi ndax dañ ko sonal Ilia ak seen chauffeur bi ñu wax laatir je crois que le moo koy jox ay directives mu daj ay coono ci ñun ñooñu dañ leen a bëgg a décorer ci tissu yi léegi léegi nii dañ ko doon fàtte di bés mais ci la bokk di leen gërëm bu baax yéen tam wax dëgg yàlla di remercier itam télé yi nga xam te ne ñooñu fekk si muy seen TV yi nga xam ne mooy suñu télé seen 24 bi nga xam te amul benn manifestation bu ñu organisé au niveau du Ngoundiane te jiituñ fa di gërëm itam Thiès TV bi nga xam ne tey tey lañ leen woo ñu ñëw teew ak rajo Ngoundiane boo xam ne mooy suñu rajo commune moom la ñuy tiitaroo ba bés bu commencé ba tey depuis Korité ba tey ñu ngi ci di valoriser bés bi di ci def ay journal di ci def ay pub di ci def ay émission Modou euh, trésorier général ak vice président daaw dongom toog ci man def nañ fi émission valoriser bés ba bés bi toll fii di gërëm bu baax tam ñoo xam ne ñoom lañ forme ak formateur yi Abdou Wade trois jours a ngi ni ñun ñooy fanaan ñooy yenn moom njaasakaay di leen masaw coono di leen encouragé bu baax tey wax ndaw ngu ñaar yi nañu kontaan tu en siiréw xam ne incha allah dina am suivi nii ñu ko organisé dinañu topp jàppale ni ko doyen directeur Abdou Wade waxee dina leen jàppale ñun ak lu ñu mën yéen tam ngeen jàppale ñu yéen waa meeru Ngoundiane ndax ñun ba ñu sañoon bulusu Ngoundiane Ngoundiane nekkatul dëkk bu ndaw li ñu fi ñëw téyiri sax jun ñu koy déplorer di ko demande loolu yéen ñu ci jàppale jooy nañ ko daaw jéeg jooy nañ ko daaw ren nag dañu bëgg ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax bulus yoo xam ne ñu koy ñëwee budget commune bi ñu koy ne waa association di ci bénéficier parce que ñun tam wax dëgg fa yàlla fii la ñu am gis ngeen ko ñun puso sax buñ ko foree buñ ko dee sànni duñ ko sànni sax feneen fu ngu ñaar lañ koy bëgg a sànni pour rek ku ko foo xam ne ay téye am bu dee lu am solo jàppaleen association Téeré Ngoundiane yoon la ñu am vraiment ay jàmbaal ñii ngay gis gën ngeen sonn kenn koo ci gis ñee ngi jóge Tiwaawan ñee seen base nga dakaar ñee nga ba Touba ku ci mel ñoom Moustapha seen lépp la ñu bàyyi kenn ku ne xam ne teer après la fête de Korité la bay sonn mais li dañ ko def tam pour valoriser waat Ngoundiane valoriser waat suñu mode ndax macha allah Assane junj na ko fi léegi jox ngeen ni hectare boo xam ne il faut ñu tudd ko fi dossier nga ngee man ñu war a def waroon def euh, pose première pierre bi tey mais comme temps bi xat xaju fi incha allah bientôt dinañ ko def euh, hectare bi ngeen ñu jox ñu bëgg fa def musée euh, volet formation bi maanaam li ko sap da ci bokk ndax bëgg nañ bu ëllëgee ñu déglu silence s'il vous plaît. musée boobu ngeen ñu jox bëgg nañ formateur yi au lieu que ñuy woo daa muy woo ñuy jël Abdou Wade ak ñoom Ndiassé ñii ñu forma tey. ñu dem booy formawaat ndax dañu bëgg ñu ni ñu jàngi métier suñuy doom ak suñu jébaat yi ñëw du ñu jàngi ci coono bi ñu daj dem ba Dakar di fa jàng ñii dem ba Thiès dañu bëgg ñu resté fii. ñu jàngi suñuy matum mën a mën a ko parce que loolu la jamono laaj. gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp vraiment di kontaan bu baax a baax